ci marché bi fépp foo sànni say gët ay ndoxu foos yu taal ci mbedd yi ngay séen mu nekk ab situation bu naqari ñu fa yeewoo xamle na ni ko loolu di leen di jural ay jafe-jafe yu bëri. jafe-jafe la ci waawakaam bu baax a baax a baax sax. xeet yi ak xale yi baaxul wóorul mun na indi leneen ak leneen ak leneen sant yàlla wallaahi. ñun ñëpp soj nañ gis nga ni may waxee. koñ bi ñëpp soñ nañ kenn jaayatut ndax ndox mi. waaw famille di liggéey fii gisatuñ client gisatuñ kenn ndax ndox mi. salte kese la amul lépp ay microbe la xale yi ci la ñuy jéggi di dem école ci la dawal vélo ci la ñuy dox ci la ñuy dem marché ci la ñuy def lépp ci ngay dëkk 24 heures sur 24 chaque jour ci danger nga nekk. ñenn si jaxaafu wakkaam yi di ñu wax li waral li ni mel. dafay une canalisation boo xam ne dañ ko defoon euh, muy branchement boo nga xamee ne yàgg na ça def des années façon bi ñu ko defee woon moo baaxul kër yu bëri si lañ branché woon mais tuyaux yi tuyaux yu ndaw la woon tuyaux yu ndaw yooyu mënul supporter branchement yi nga xam ne moom la yenu yëpp bëri dañuy bàyyi seen i njàmpe muy wadd dañuy bàyyi seen lu ne muy wadd ci biir euh, tuyaux yooyu moo indi blocage boobu population yi di ñaax nguur gi jàppale leen ci assainissement bi pour ñu ñëw dimbali ñu ci euh, assainissement Wakaam bi sonn nañ ñun ñu ngi nii amuñu assainissement te ñoo gën a sonn ci assainissement bii nii waaw bëgg nañ wakaam jag comme ni mu ko campagne woon daal loolu lañ bëgg ci wakaam loolu daal laay lancé euh, mairie bi waaw ñu dimbali ñu torop sonn nañ solution bi mooy lan defar canalisation bu baax fii wakaam euh, ndox yi mën di dem ndox yi mën di dem di verser canal yi ndoxu foos yi taas ci mbedd yi di gën a bari ci wakaam li ni mel naqari ñu fa yeewoo ndax loolu di leen di jural ay jafe-jafe ba ci seen wérgu yaram te nag nguur gi mënoon na ko xeex bu leen jàppale ci assainissement bu baax